bisimilah ok bisimilah asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi delluwaat di bu baax a baax mu mel ni ñoo ngi waat fii ci jitaay bi ci plateau bi eh, ci jitaay bu màgg bi waaye ci bis bu màgg bu rëy bii di bisub Serigne Touba waaye di bisub assemblée générale mboolem waa Touba Italie yëpp eh, eh, coordination bi Touba Italie mboolem jëwriñ ñi xam si ñoo ngànk liggéey bi yëpp ñoo bokk daje fii. ñoo ngi daje fii ci Touba Parma kër Serigne Touba gi waaye ñu fet fi mboolem eh, jëwriñu Serigne Touba yi ci seenu jàmbaar waaye ci seenu bëgg Serigne Touba ak seenu taxawaay bu am solo ñoo ngi fii nag eh, ci plateau bi ci sama loxo ndijoor ñoo ngi feggoog Baye Modou Tall jëwriñ ji nga xam si ni moo jiite centre culturel ci eh, coordination bu Touba Italie waaye ci sama loxo càmmoñ ñoo ngi fekk Serigne Balla Thiaw waaye teewal fi jëwriñi kër Serigne Touba gi di Baye Cheikh Mbeng ñu fas yéene andi ay leeral waaye ak i soññee jëme ko ci liggéey sëñ tubaab bii waaye rawatina liggéey bii di nooru Daarin Touba ci kanam Baye Modou kon xam naa dañ lay jox kàddu gi rek nga andi ñu am nuyoo rek boo nuyoo ba pare ñu mën a woon liggéey bi incha allah. jërëjëf Baye Massamba. bisimilah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi dellu si waat di leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk turam ak santam. jiiteel ci nuyu bi Serigne Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moo ko rakkam yi ak doomam yi ak dongaam yi te ku amin yàlla na saaja faju ci jaajëfal bokki jullit yëpp yi nga xam ne ñoom lañ àndal tey jii ci jataay bi di jataayu Touba ñu koy wax assemblée générale boo xam na li ko tax a jóg rek mooy saytu mbirum Touba li ci biiram ak li ci biteem ak neseri sëriñ Touba yi nga xam ne jaral na ko mu daas xalimaam sëpp ko ci daa yaxal ko ci ay kayit ngir muy loo xam ne si nii eh, pour futiir moo tax mu def ko muy loo xam ne si nii kenn ku ci nekk am na ci wàll ba addunay tukki te fas na yéene kenn ku ne boo ñëwee la ci sa wàll nga man koo xam xam ne lii bëggug sëñ Touba la ndax moo ko yaxal ci aw kayit nga jàngal ko sa bopp mu mel na sëñ Touba daa toog nga toog mu waxal la ko uh, sa bopp waxal la li bëggam waxal la li mu bëgg ci Touba te ngay kenn ca ña ko war a def bu ko defee nga mën a jóg jëm ca jëfe ko sa def ci sa kemtalaay kattan kon daal noo nga lay nuyu bu baax di nuyu bokk yëpp jërëjëf Baye Modou jërëjëf ci nuyoo bu matale boobu waaye jërëjëf ci kaddu yam solo yooyu ñoo ngi lay fay nuyoo bu baax a baax kon dañuy ci eh, teewaay fi mu yëkkati kàddu waaye kaddu yi nuyoo bu noppee rek ñu mën a wéyal incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa di nuyu waa tuubaa ca kanam yëpp. Eh, di am mbégte di leen dalal it nag. Eh, waaye mu am lu particulier lu ci am. mooy dajab Touba ca kanam bi tasanteeg kër Serigne Touba giñ koy defee mat. Euh, ndax euh, jamono ci ginnaaw mbokki taalibe yi daje nañu waxtaan ni tubaab bi daal nañu fexe tàggook ñoom ndax nag des na ñaar fukki weer ak ñaar waaye ñu euh, jokkoo rek booloo góorgóorlu dajale xaalis bi ci am bi ñu leen ameel yëpp fay leen ko kon talaata lañ def loolu tey di samedi Touba ci kanam daje fi mbégte dong lañ lañ ci am kon euh, di leen ñaanal seen taxawaay yàgg di ñaanit rek euh, euh, liggéey bi sax altine laa jógee Sénégal waxtaan ak benn sëriñ boo xam ni kilifa la waaye nam leen wooyee moom laa leen di wooyee léegi dañ naan Touba ca kanam moom mu ni Touba jëm ca kanam kon mbégte rek lañ ci am di ci profito it nag di sant suñu jëwriñ Cheikh Modou Ndiaye waaye di sant it eh, sëñ Matar mbay mi nga xam ne moo yor liggéeyu Touba ca kanam fii di soññ taalibe yi ndax nag eh, eh, liggéeyu Touba ca kanam ñëpp gis nañ ko ñi ngi jëmbati garab ñi ngi defari dispensaire ñi ngi organiser nit ñi te Touba loolu la soxla kon di sant bu baax di gërëm di ñëpp góorlu rek waaye di soññi waa Parma nag Parma jàmbaar lañu bu ñu leen wooyee ñu ñëw bu ñu laajee ñu joxe. ñi yor yi fii ñi ngi fexe eh, na ko sëñ Cheikh Mbacke waxe woon rek di laaj lu ñu man waaye di ko def fu ñu xam te it noonu la ñu gis nag waa Touba ci kanam di ko def kon eh, liggéey bi benn la nañu àndandoo ñun ñëpp rek jàpp ci eh, Touba jëm ca kanam ñu nit ñu jëm ci kanam jërëjëf. waaye kay jërëjëf sëñ Balla waaye jërëjëf ci kàddu yi leeral loolu waaye jërëjëf ci kàddu yi sëñ yu am solo yooyu xam naa kon dinañ ñëwaat ci yow xam naa dañuy jox kon Baye Modou. Baye Modou boo ma ne kàddu yi soññee eh, ci liggéey Serigne Touba yi waaye rawatina liggéey bu sell bii di nooru daare ni ay kàddu yi soññee kàddu yi leeral bu ko defee jëmbul am na mbokki taalibe yoo xam si ni ñu ngi doon ci liggéey bi di ci dox waaye jëmbul bu ñu déggee kàddu yi dina doon ab soññee ci ñoom waaye am na mbokki taalibe yoo xam si ni soo bëgguñ xëy na jëmbul bu ñu déggee kàddu yi dina doon ab soññee ci kon bisimilah Baye Modou. jërëjëf suñu Cheikh Badar ci laaj bu am solo boobu. muy ay soññe yoo xam ne xam naa day tàmbalee ci man di dellusiwaat ci man door a dellu ci képp ko xam ne rek xañ na euh, sañ naa sañ naa ko labiré wala sax rek mu dégg ko mu dig labiré mu man koo jariñoo kon ñoo ngi la ci sant bu baax a baax te di la gërëm baax xam naa fii nu koy waxee nag moom itam lu yéeme da cee xew ndax euh, Touba ca Parma lan tànn euh, teewal fa tuubaa waxtaane mbirum Touba Touba ca Parma nag yàlla dogal jëwriñ ji wax ne li nga xaay si moom la war looloon Touba moom la war looloon Touba bi ba mu lew doomu sëñ Touba loola moom wàcc nañ ca ñoom kon muy alali sëñ tuubaa euh, ñooñu nag euh, bis na ko tey nan xam seen bopp ndax damay jàpp ne kun gënul ci kaw suuf it gow mën na am na ku leen gënati ci kaw suuf ndax liggéeyu euh, sëñ Touba fii day liggéey bu bu am solo ndax liggéey bi eh, nun bi ko sëriñ bi santaane dafa dafa fekk nun kër gun dugg sax mënuñu ko am eh, lu ëpp ñaar fukki nit dañuy nekk ci bennum nekk di ci saddoo kenn ku ci nekk la nga la nga mën a yanu ci lislaam rek moom ngay dugalandoo ci biir néeg ba ngeen bokk fa nekk sëñ Mourtala bi mu dikkee nag mu xam ne ñun day ñoo ngi jéem a xool fu mu dugal suñu bopp waaye ñu ngi bëgg a fàtte lislaam te lislaam a ngi ci mbedd mi di fanaan bitti ngelaw la di ko fi fekk taw bi di ko fi fekk mbooy mi di ko fi fekk ndax dañuy seetaan kon lislaam ci mbedd mi muy tawtee ka uh, tooy sëñ Mourtala nag mu waxul nun nu wut fu mu dugg waaye dana nan wut fu mu dugal lislaam kon mooy béréb yi nga xay si béréb yi lislaam la ko tudde tey ji yaakaar naa bi ñu fi xëyee ba nii nuy tàggatoo nii kenn ku ne xam na ne lislaam dong lan fiy waxtaane lislaam dong nga fi nekk kon mel na ne jëlee nañ lislaam ci mbedd mi dugal nañ ko ci biir kër fat nañ ko boo doxee ci mbedd dajeeg sam nawle jàpp ne moo la gën yow xamoo sa bopp kon na ngeen xam ne bokk ngeen ci ñi gën ci ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ngeen ci ñi gën ci jullit ñi waaye bokk ngeen ci ñi gën ci murid yi loolu moom na na na doon na doon lu leen lu leen leer am ngeen it yóbbul boo xam ne doy na sëkk am ngeen it yóbbul boo xam ne doy na sëkk kon nag yéen bu te loolu dan ko royee ci sëñ Touba ndax sëñ Touba tamit daa fekk buur yi nekk fii fekk fi ceddo yi nekk fi lislaam di tawte ci mbedd mi di fanaan ci mbedd mi kenn amu ci soxla ñëpp nekk ci leneen mu ñëw xool foo xaay si dara nekk fa mu fàkk ko ne lislaam lay wutal béréb yaakaar naa tey jii eh, boo duggee ci Matlabul Fawzayni lam fa wax lépp ne julli juróom yuy sax dàkk eh, jamaatul tam salawaatal xam si dëxban yaa ak kii ba mu koy wax loolu dangay koy jàpp ne lii fi taxu ko woon di jóg ndax ci gott la ko waxee waaye booba moom fàggu na ko sunu borom may na ko ko ci baati ba mu jàkkaarloog moom léegi nag mu daal di wut benn euh, feuille de route boo xam ne la fa war a nekk lépp mu yaxal ko foofa léegi nag la ca des nag léegi mooy sëriñ bi tamit fàggul na sunu borom it fàggul na ko ñu war a réaliser loola kon day mal man mi kenn laa ci ña ko sunu borom fàggul ñu war a def loolu Cheikh Badar yow kenn nga ca waaye sëñ bi moom i tamit kenn la ca kon loolu tamit ñu amaat cant boo xam ne si nii war nan ko sant sunu borom te lottu nan ci kon li nga ko mën a fayee rek mooy des ci liggéey bi ba faw euh, Touba ca kanam nag liggéey la bu yéeme boo xam ne kenn mënu ko leeral ndax leeral ko daa xajul cedda maanaam wuute yi ngay am ba a leeral Touba ci kanam mënoo ko am jamono euh, ndiw ko ndax dafa am loo xam ne maanaam tur yee ñëw ci kaw suuf waaye jëmm ji ñëwu fii moo tax neexut a melal waaye daal li wér te daal mooy yéen a ngi liggéey liggéey boo xam ne bu ëllëgee bu sëriñ bi jógee euh, ba woo ñi nga xam ne si ñoo doon sonne ci Touba ndax sëñ Abdoulaye wax na ko léegi nee na Touba ci kanam li mu ko ci wax bari na li mu ci daj bari na waaye na ko sa bakkanam pourtant sëñ Abdoulaye loolu la waxoon ne dana lii mu fiy tere bakkanam la ci gar képp koo xale si jóg nga nag ngir bëgg def loola nay tey kon kooka moom taxaw na kon léegi bu sëñ Abdoulaye toogaatee fi waxaat même chose kon ginnaaw sëñ Abdoulaye la jaraloon bakkanam yéen itam mu jaral leen seen bakkan ngeen ciy sonne kon yéen dëgg dëgg li ngeen di sonne dëgg dëgg dëgg bu ngeen ko xamoon di nga xam ne lu ngeen ci daj rek asaka ja la ndax ke ci doomi sëñ Tuubaa moo ne bakkanam la ko jaral kon nag yéen bu ngeen waree matérialiser loola maanaam mu mandarga jëmm ba dëkk bi ku ko gis xam ne lii kat li sëñ Tuubaa doon wax ci Matlabul nii lépp lenn lu ne ci mën nga caa teg baaraam lenn lu ne mën nga caa teg bët loola koy def liggéey bu sëñ Tuubaa la boo xam ne si ni di liggéey bu yàlla boo xam ne si ni yàlla nangu na ko noppi kon nag maa ngi ciy soññi sama bopp di soññi bokki taaliba yëpp ñu xam ne 2 millions yu murit sëñ Touba am na ko 2 millions yu murit yuy liggéeyal sëñ Touba ci biir Touba ci biir Touba ci kanam moom lañ wax ne moom la ñuy wut loola tamit li ko tee am ci nun la ni ma ko waxee léegi rek mooy kenn ku ci nekk na xool boppam xool ak njabootam ba xam ñëpp a ngi ci wala ñëpp ñëpp nekkuñ ci. te kenn ku ci nekk sang njaboot jàpp nga ne ay ay ay taalibe sëñ Tuubaa la kon bu fekkente ne am na ku ca des da xam ne kenn koo kee ca des bokk na ci ñi manqué ci 2 millions murid kon nag nan tàmbalee ci sunu bopp fexe ba sunu njaboot gépp dem ci sunu fexe ba sunu njaboot gépp dem ci rek lu ëpp 2 millions murid yooyu danañ ko am waaye tamit ñu wut nag ay pexe yoo xam ne si liñ soxla ci Touba dana ko mën a def ko dootul jóge ci ay cotisation te jàpp naa ne ñu ngi ci yoon wi jërëjëf. jërëjëf waaw jërëjëf kon Baye Modou waaye jërëjëf ci kaddu yu am solo yooyu jërëjëf ci kaddu yu soññ yooyu ni nga ko leerale ci liggéey sëñ Touba yëpp waaye rawatina liggéey bu màgg bii ñuy amul ci Touba Parma waaye ni nga nu leerale bu baax a baax it liggéey bii di Nour Daaru Touba ci kanam kon yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp nun taalibe yëpp rek ban gën a mën a sóobu kon Baye Modou xam naa mel na ni waxtu wi jot na kon xam naa dañ lay daal di bàyyi ko defee dañuy jaaxo sëñ Balla rek mën kaddu yu mujj rek ñu mën a yëkkati jotaay bi incha jërëjëf ci tëjee rek mooy li sëñ bi wax sànq ni liggéey bi moom euh, day sax dàq kon mel na ni euh, tàggoo nañu tubaab bi fii fay nañu kër sëñ tuubaa gi waaye nag dañu laxasaayiwaat jëwriñ wax na ko nee na bëgg nañu ñu def benn euh, saal bu mag fii boo xam bu tàngee day sedd ci biir waaye bu seddee ñu tàngal ko ci biir kon loolu day wane ni rek liggéey eh, liggéey sëñ Touba jëm eh, kanam la jëm eh, lu lu lu ñu rombit songu leneen rek kon foofu la ñu jublu fi mu nekk nii songu loolu at yi ñu jëm loolu mën a sotti continué waat kon ñu ngi sant ñëpp di dolliwaat di sant waa ca kanam wax leen ni bis bu mel nii ñu tànn Parma bëgg nañ ci di ñaanal ñëpp wasalaam. kon xam naa Baye Modou kàddu yi mujj rek xam naa kon wala ñu waaw kon baax na kon xam naa mel na ni waxtu julli jot na mën nañu daal di yëkkati jotaay bi rek daa di eh, eh, joxe waxtu suñu borom incha allah kon jërëjëf Baye Modou ci kàddu yi waaye jërëjëf sëñ Balla ci kàddu yi leeral yi kon jërëjëf yàlla na yàlla defal dégg topp waaye liggéey sax ba Cheikh Ahmadou Bamba bi suñu borom gën noo kattan waaye gën noo may nàmm suñuy xol ak suñuy xel ban gën cee mën a soobu bu baax a baax kon jërëjëf salaamaaleykum wa